jërë ngeen jëf euh, mbokki internet yi dalati leen ak euh, jàmm yéen ñi ñuy topp su sunu seen bi di live Dakar 221 ba tey rek li si gën a fes mu doon kooku di Cheikh Bara Ndiaye borom def gi seen nekk ab chroniqueur tamit foofee sa wal fajri ñu gën kaa ràññee tamit si xeexoo bi nga xamante ne si ne Ousmane Sonko doon na ko xeex mu si daan génn di si àddu lu bëri bëri moom nag tey jii rek daal dinay génn def tamit li nga xamante ne si ne moo di jàkkaarloo ko bi comme ni ko ñu bëri daal di jamono ji di ko amal muy conférence de presse moom kooku di Cheikh Bara Ndiaye nag indi say révélation jëm si 100 jours yi nga xamante ne si rek nguur gi fi nekk daan nag fi amal mu di nguurug président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom nag ñëw na sa bilan ba bilan bi nga xamante ne si ne daat Nescafé yi amal si 100 jours moom nag mu indi say révélation yu bëree bëri moom kooke di Cheikh Bara Ndiaye borom moo def ki si muy xamle na rek kooke di Bougane Gueye Dany malhonnête dëgg dëgg rek la def moom kooke di Bougane Gueye Dany ndaxte rek moom buy wax rek naan li nga xamante ne si ne gis na ab commerçant bu nekk foofu sa Touba daal di dem rek foofu nga xam na moo di sa graw loole nag moom koy wax ko noon na a wax rek. ak euh, démocratie bi nga xamante ne si rek euh, Pape Alé Niang daan na koy doxal niir ab micro euh, foofee rek ba muy def conférence de presse mu koy biral loolet mënoon na sax gërëm ki nga xamante ne si ne moo di Bougane waaye nag loolee lépp deful ko benn yoon moom ko kee di Cheikh Bara Ndiaye yëkkati kàddu ba tey jamale si ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany mu doon yëkkati ay kàddu fan yi ñu génn rek si nguur gi nga xamante ne moo fi nekk ba tey rek Cheikh Bara Ndiaye indi si ay révélation yu bëree bëri ak bilan bi nga xamante ne si ne nguur gi cent jours yi mu fi toog rek daal di nag fi amal moom nag muy wax cent jours sans transhumance ndaxte nag cent jours amul média étranger bu xamante ne seen rek daal di na tàllal micro ki fi nekk mu doon président bi cent jours sans France maanaam timit demul si cent jours yi fi nga xamante ne si ne moo di France moom kookee di Cheikh Bara Ndiaye indi si ay révélation yu bëree bëri lépp rek jëm si bilan bi nga xamante xamante ne si tamit euh, nguur gi fi nek dat naka fi amal ci diru yang jours yi nga xamante rek la ko sam sa lam sa gëna a facilit mu don 100 jours sa transimas bi nga xamante na na sa euh, bu fi euh, Sénégal am indépendance ba léegi man na na rek ñu ci bari dañ dan def ay transimas way nak nguurug président Bassirou jomay fay mel na nak gisunu si Benon, pada ba ketika nag yëkkati kàddu nak ko nag ki nga xamne modou Ousmane Sonko ci ay ndigal yi rek dan naka def ba mu jotté ci nguur gi mu doon ñi nga xamante ne si ñoo di ay ministre képp koo xam ne yoroon na beneen post rek ñu daal lay wax nga daal di bàyyi boobee la poste daal di ñëw rek fukki si li nga xamante ne si nag moo di lan la fal te ñëpp dañoo daal di def loole nag mu ne nag loole yaakaar naa mi ngi fi doog am te ñooñ ka bàyyi loo tamit ñooñ amul lenn lu xamante ne si tamit nañ ko say xool mu doon ab conférence de presse Cheikh Bara Ndiaye bëri na